Euh, jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ni ñu leen ko waxee rek tey ñu ngi waat fii nga xam ni rek moo di ci euh, hôpital Dalal Jàmm tey ñu fekk fi nag euh, ki nga xam ne ni ma ko waxee tey tey gétt gii ñu toog tey muy géttu ki nga xamante ni muy Samba famille di Lamine Samba ñu bëri xamee ko ci opération tabaski saa su ne du at bi la ko tàmbalee def def na ko ay at di ñaan yàlla mu gën ko yokku tey nag mu mel ni ñu ngi ni leen ko waxee woon ci njëlbeen ñu ngi ci jamonoy mbas mi di Covid 19 waaye itam moo am ay matuwaay yu am solo yoo xam ne incha allah dañ ci fës waxtaan ak moom damay euh, tàmbale ak moom rek damay ñëw ki nga xam ne si Mass Boga moo am li nga xam ne dina ko ubbee ci jotaay bi nga xamante moom it euh, kuy jàppale euh, ki nga xam ni mooy notre doyen Lamine Samba ci liggéey bi la Mass Boga ñu ngi lay nuyu. ah ñu ngi lay fay kilifa gi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah comme ni ko sénégalais yëpp di defee ak nin koy waxee rek ah, ginnaaw natt la bu sunu borom wàccee du na ñëpp tëju waaye am nañ droit li Macky Sall wax ak li nguur gi wax ñu def ko nee na ñu invité mesure barrière yi kenn ku ci ne may sa morom distance booleeg di takk mask bi ngeen di yéen a ngi gis man leen raxasu leen ngeen laal sel door a dugg ci si baas bi bu doon da di jënd ci xarit noonu lay tëddee ndax borom baas bi moo ragal otoom loolu la koy def néegam loolu la koy def bu toogee fii ci biir nit ñi sax bu laalee xar ñëw laal def noonu kuy waxaare xal mu nuyu la ñëw def noonu moom moom moom fu mu jóg mi ngi kon kooku loolu muy def ñun loolu lan gis si moom rek ba koy dugg si dinañ la mën a laalal gel na la jëlal sa matuwaay après nga dugg nga waxaale xar nga xool xar bi nga bëgg ñu daal la koy jaay waaye nag noonu rek lay mën a demee ndax loo xamul kañ la ñëw ak kañ la fiy jógee wax dëgg fa yàlla da ngay moytu tey def sa liggéey daal waaw. ok Mass mu nekk loo xam ne li nga wax noonu lu am solo la te loolu loolu la ñu remarqué ci moom ba mu ñëwee boobu ba léegi gis nga euh, matuwaay li ñuy laaj yëpp mu ngi si Euh, fi ma jëm tuuti rek mooy ci wàllu li nga xamante ni tey ci xar yi xëy na yaa ngi dund ak moom euh, xëy na waxtu yu bëri euh, Lamine amul temps boobu sax waaye dina ñëw di suivre di dugalante ak ñi nga xamante ne ay am di jàmmam waaye tam yéen ngeen nekk yi nga xam ne yéen a ngi fi toog saa su ne di ko jàppale ci liggéey bi naka ngeen dundee wàllum li nga xam ne opération bi jamono ji ak xar nekk na loo xam ne lu metti la yaram ba li nga xamante ni saa su ne nit ñi war nañu mën a ñëw di jënd si di jël seen xar waaw waaw macha Ah, kenn du catu sa bopp sax waaye ku dugg ci si dara lu Lamine Samba bi xam ne rakkam jim dénk xar yi bàyyiwul dara mu seddi te damaa dégg moom pour mi fële lay xoyam xewme ak fi mais lépp fi lay xewee te dara lu ren bii macha allah boo dugg see boo xuma xar yu mag yi mais boo duggee ci xar yu ndaw yi rek xar mi sax seede na ko dégg nga ni mu ti soolee noonu boo duggee ci xar yu ndaw yi nga xam ne ay oignon la indi teg te macha allah jël na décision boo xay ni bokkut ak décision ba mu jëloon daaw daaw daa génne xar génne xar ba xar jeex ñu laajaat ko yeneen 52 xar te munu koo am mu joxe 40 xar yi bàyyi la ca des waaye ren dane incha allahu dinaa fexe ba sama nit ñëpp kenn ku cine ne lépp loo xay ni si da nga koy soxla ci xar ma utal la ko daal di la koy tegal en attendant mu nuyoo ñu daf ñoo nuyoogum xar yi te xar yaa ngi ñëw daf ñoo nuyoogum lii yónnee na ñaari ñaari jëmm yoo xam ne danoo dem pour jëli xar yi waaye lii du nuyoo bi la maanaam teeñ baa ngi ni yan bi ñëwagul xar yi nag boo gisee nuyoo bi boo boo dëppee sa caméra xar yi di nga ci gis maam booy jaawo Pape Mayal Balla Gaye ah Modou Lo di nga ci gis Lac de Guiers 2 di nga ci gis ki nga xam ne mooy Baara Gueye Kilin Awal di nga ci gis Omar Issa Gueye di nga ci gis ki nga xam ne si mooy Aline Sall Roqaya bi nga xam ne Gambia moom moom bañ na ko ba day jël 20 xar wala 40 xar yoo xam ne da koy jël pour ay imaamu Gambie ak ay imaamu Sénégal spécial kon yaakaar naa ni daal li ci kanam rawti bët bu émission bi dawee ba daw ba daw ba daw leneen li ci des dinañ leen ko sullil wax leen coono bi ci xar ak xont bi bi mu naan bi ak toppatoo leen laaxati ak xar mu lëj danoo spécial ñi leen di laaxartee gi nii man damay toog rek di waxaale di jaay mais dafa jël ay nit ñoo xam ñooy garder guddi am ñoo xam ne bëccëg gi ñooy chiffre xar yi di contrôler xar yi jël ñoo xam ne tamit ñooy nettoyer gétt bi Lamine moom fi la set wi ñee koo daal Lamine daal mi ngi noonu daal Lamine moom macha allah quoi mais maa ngi dégg léegi nga wax euh, Alioune Sall le maire moom laa dégg nii ay euh, xaram a ngi fi de Alioune Sall xanaa gisoo jàmbaar ju weex jee ko wutal bële dend ak euh, nu koy waxeeti euh, euh, borom borom Kafeer borom Kafeer Pape Mayel xar mais Alioune Sall ak Mayel ñoo dend noonu ñoom ñaar ñëpp ay balan lan waaye boo xoolee bu baax manoo balan bi Baara Gueye Kilin Awel moo ko moom. cuulul bi nag moom ñëpp xam nañ ki ko moom maa jigéen Ndour la ko tànnal Youssou nduur la ko tànnal te Youssou Ndour moom nee na lu ko lu ko lu ko lu ko Lamine Samba jox bëgg na. ndax benn jëmm la am joxe ni si buy jaay mu jënd muy Lamine Samba waaye ñiy jaay xar bari nan nag waaye Lamine lay wër Lamine ni lay wër nag bari nan laf cet laf cet laf cet sama mag gi yal na yàlla defal la jàmm ah, bu see ngi noonu moo jóoba ngi nii a ah, di samay élément yoo xam ni ñoo bokk gétt gi bëccëg élément guddi gi ki nga xam si mooy mbër daali ak naar ak ki nga xam ne si mooy Lamine mu ndaw ñoom ñoo fi nekk ñoo fi nekk ci gétt gi di jàppalante di liggéey macha allah yal na yàlla defal leen jàmm ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ci alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf kontaan naa sama xol sedd na yal na yàlla yokk leen si di yal na bari télé yal na bari ci barke yonent bi ngeen fekkee lépp kon nag ah, ki nga xam ne moom lañ tuddee rasulilahi sama gars yi dañoo yàkkamti te kii maay magam. man bokk naa ci ñi ko njëkk a wane ci tele ba jël micro jox ko ko. jëmmam kàddoom ñëpp miin nañu ko ci tele yi ak ci rajo yi ci jàppale askan wi nag ci fànn wu bëri nekk ci télé bi nga xamante ne ni sama tele xarit la la Sen TV e kaay ma wax Bougane ko de maa moom gars yi xam nañ sama diggante Bougane lu ma xewle moo cay jiitu. sama ngénte li mu junni dafa ñëw teew te ñëpp xam nañu Bougane amul temps dafa may woo di ma conseiller man Sen TV fa laa bokk loolu laa bëgg ñu bëri xam ko ñu bëri xamuñu loolu ah man Sen TV dama ca bokk Bougane sama xarit la bokk naa ci rare personne yu ko naan directeur nangam sangam nangam ci nii ma jox la exclusivité bu garaw j'ai fay fa xaw naa dem Sen TV man ma jox la exclusivité bi mais dama ne képp ku wax rek takka nañ la dama ne yàlla na ma yàlla may ma retraité Futur Média mais bu dul woon Futur Média damay dem si Sen TV Bougane maa moom dañuy wërante sama xarit la man damaa ñeme fi ma jëm man man laqatuwu ma nëbbatuwu ma dégloo li ma la wax de Youssou Ndour daf may fay waaye moomu ma suñ borom mooma moom dégg nga ma te sama métier macha allah tubaar fakàlla dama kaa man dama koo jàng. du ma tarbiyu kenn ci àdduna xanaa xanaa xanaa gisoo euh, moment bi liñ ma def ma delluwaat ca rédaction ya lundi mardi mercredi jeudi vendredi man maay def revue de presse Futur Média TFM ci info info matin euh, samedi dimanche maay def euh, journal RFM wa Futur Média jox na nañu sama cër waaye bu dul woon Futur Média nag seen TV lay doon. <laughs> damaa ma ah, am na solo am na solo. ma ma ñaan yàlla. parce que sama carrière li ma dese pour ma retraité bariwul yàlla naa retraité Futur Média mais man Bougane dama ko bëgg ndax daf ma sagal bu dul benn du ñaar du ñett du ñeent su ma xewlee mu ñëw sama ngénte li passé billahi wallahi taalaahi daf maa woonam waa saa ngeen fan ma ne ko géej waay mu ne dégg naa fa corona de <laughs> waa jaaral sama bureau ma jaar bureau mu yëkkate xaalis bu bari jox ma ko Bougane daf ma bëgg li may wax nii du caaxaan daf maa bëgg daf maa bëgg daf ma bëgg ko te ma yëgal la ñaar nag Bougane Youssou Ndour ay magam eh dama ne am na lu mu doon feete invité ñu bari Youssou Ndour bokk ca ña teewoon menn ni mu Youssou Ndour moo xam li Bougane doon feete ñu bari ña nga fa woon di lekk di naan ak a fecc ak a tàccu xamuñu woon li xew mel ni mu Youssou Ndour ko xamoon moo tax nañ def attention ci patron de presse yi nañ ci def attention bu bu ñuy xeex bul fekkee bu ñuy wax bul fekkee bu ñuy def bul fekkee parce que foo ñuy gisantee ba jëlal décision ñun duñ ko fekkee doxal ma sama rakk ji Fall Ndiaga euh, man mën a dellusiwaat ci léegi ak euh, Lamine Samba maa ngi dellusiwaat ci moom léegi euh, Fall Fall Ndiaga euh, yaakaar naa ni sama diggante maak yow du fii yàgg na tawar la ni bég loolu nag euh, saa su ne nga ngay am interview ak man malgré euh, xëy na fa ñu dañ daje daje tuñ fa waaye saa suñ la yitteew tam mu yomb tey ñu fekk la fii tey ci gétt gi nga xam ne muy Samba famille tey lan nga ci indi. jërëjëf damaa romb gis baas bi sañu maa jàll oh. ma ni ak Maas ah il faut ñu wàcc il faut ñu wàcc. Euh, moom day sama mag daf may seetaan ni ma toogeel nii waxeel nii émission jeex mu woo ma ñëpp ni yaa ngi fiy toj mun ma doy du noonu de defal nii moom da koo sañ si man dama xam ne ku may kalaame dama kalaame maag Lamine <laughs> waaw euh, moo ma njëkk a jël mikro jox ma génne ma télé moo ko njëkk a def ci àdduna xam loolu kenn du ko fàtte muy sama mag di sama conseil spécial yàlla def mu bëggal ma boppam moom dafa maa man man la man la mel ñi dañ maa faa man ma faa la yow <laughs> maa la faawal sama bopp dama fay jaar taxaw fële si oto bi daal ko Lamine mu yuuxu ko ni yàlla na xar yi jeex te ni mu waxee eh, eh, xar yi day jeex parce que jaayewul njëg mais xol lay jaayee waaw xam nga kuy jaayee xol dafa garaaw waaw jaayewul njëg mais xol lay xol lay xol lay jaayee mu doon nag boroom xol bu rafet barki dem dama doon lim gaa yi dàq jooy gaaw a gën a gën a jooy ci place ngañ ma boole ko ci <laughs> <laughs> barke yonent yàlla <laughs> waaw joxal Mouhamed waaw waaw waaw waaw waaw waaw Mohamed. mais mais kon Lamine. <laughs> Mohamed ñu ngi lay ziar bu baax di rafet lu xam naa jotaay bi di ngeen ñu ko fekkee xam naa ni hasard du hasard euh, ñuy bég lool nag ah na tey la jàkkaarloo bi njëkk am. fii nga xam ne fi Gett sàmba famille euh, ci opération tabas bi nga xam ñoo ngi koy waajal fii euh, tey lan nga ñu mën a indil tey ci jëmm jile euh, di sunu doyen Lamine Samba. xam naa ko miin naa ko xam naa ko miin naa ko mooy koy xëy bés bu ne di jàkkaarloog moom ci télé lu mat at war nga koo xam war nga ko miin waaye dafam lu ma bett tey benn bi melokaan la bi ci des kàddu la. léeg-léeg damay faral di ko wax ne ñun diine la ñu séntu waaye ñëpp ay nitu diine la ñu ñi danoo jàng di jàngal ñi ci des kase loolu rek moo fi nekk mais ñoom ñi ñëpp tey bu julli jotoon moom mën naa jite mën mën naa jite mais ñaari ma jàng mooy euh, ndekete toogu rek ci télé bi di xaar paiement weer de mu dundee ko toogaat pare ci dama ci jàngat ci loolu muy benn beneen bi ci des dama jàngat ci euh, communication bi mu wax sànq kenn ku ne war nga cee gis sa bopp te mooy am na koo xam ne mën nga jëndee xar 200000 waaye mën nga ko jaayee 150000 par force am koo xam ne mën nga jëndee xar 300000 francs mais da nga koy may xar mi parce que ëllëg mën ngaa lekk ci moom 500000 francs loolu euh, daf ko wax léegi ma ne xamul sax euh, li mu wax parce que émission bi ñu doon def léegi ci lañ doon jàngale gis nga àdduna méttiwul li métti mooy kii fayee ko 100000 francs di yóotu xaru 300000 boo duggee ci géttu Lamine Samba gi bu dee 50000 la nekk sa poos doo ànd ak sa soxna koo gis mu am problème xar rek soxnaam la àndal wala dafa diggee lu mënul guddi boo duggee ci géttu Lamine Samba yor 50000 francs da ngay woo ci ñii mu nekkal kenn xool xar mi gën a ndaw jëm mag. waaye doo yor cinquante mille franc xool xar moo xam ne xarum yar la Lamine def ci deux cent cinquante mille nga ne ko Lamine sa soppe laa ci télé bi laa lay seetaan bu ma sañoon di nga ci jàpp di nga ci jàpp yow yaay njëkk a jàppale sa bopp te mooy cinquante mille yi nga yor dangay ngay wut xaru mille yéen ñaar ngeen daje ci cinquante mille mbaaxam mën na koo may sax boo génnee amoo njëgu taxi Lamine génne waat deux mille cinq cent ni la maa la ko may jëndee ko taxi faw ñu jàppalante askanu ngiwal nag moo ci gën a méttee jaayanteeg jëndante ndax ñu ëpp duñu indi xaalis ñii ñëw ci askanu ngiwal dan lay jooytu si ñun ñu nekk ay géwal xam na nu loolu maa ngi naan am na problème fi mu toll nii bu rëy rëy rëy parce que ordinance du ko noppal Lamine jàpp ci Lamine awma lu ma sol Lamine góor gi affaire yi demeewul noonu te koo ci jëlul téléphone benn yoon ñaari yoon ngir sa xat-xat dootu la ko pardonné yàlla na yàlla jàppale ko tey la ñu doog a gisee nag jëm ak jëm waaye naw naa ko ndax romb naa ko gis mu ñaqee teraanga am fu dul TFM ba ma mën ci amaat jàngat. appel ma doon jot léegi la ministre Abdou Karim Sall la mu ne ma maa ngi ñëw xar mi may tëbaskee yaa ma koy jaay mais il faut pas il faut pas que ça soit un grand mouton ah. mais il faut pas que ça soit un gros mouton Abdou Karim Sall le ministre moom moom sama xarit la personnellement suma xarit la ah ñoom gars yi mën nañoo jënd xaru un million maye ko mais ñoom xar ñoom ñiy tabaskee mënul passé quatre vingt mille quatre vingt dix mille c' est humble et puis c' est c' euh, macha allah ñu di sant bat bu baax a baax euh, ki nga xam ni mooy Fall Ndiaga waaye sëñ Mohamed ñoo ngi lay béggeel tamit bu baax a baax a baax euh, di di rafetlu bu baax a baax a baax.